ay bo mbër. Mhm. ay xale yoo xamante ne ay mbër lañu nekk ay équipe mais booy dañoo dajaloo nee nañ booy dañoo dajaloo nee nañ dañuy ñoom dañuy dugg ci gaal kenn mënu leen a tee dugg ci gaal gi la ñuy bañ nag di ko bañal suñu mbokk parce que tamit ñiy dugg ci gaal yëpp boo xoolee suñu mbokk la bu dul suñu mbokki mbër suñu am na ñoo xam ne suñu mbokk deret lañu te tey ñàkk liggéey bu leen ko xañee tamit dina xaw a nu nguur gi moo ko teg nit ñi déedéet safaan la bu ñëw boo xamante ni ñoom mënu ci dara ndax kenn ku ci nekk bu doon sa sago da ngay xëy di liggéey di wàcc di yóbbu dem sa kër doo benn problème doo am benn por benn jafe-jafe doo ko ci am mais nag bu jafe-jafe amee pare wax dëgg yàlla te xamaguñu kañ lay jeex li ñu war mooy ñu toog ñu waxtaan suñu biir ñu xool lan lañ mën a def ban solution lañu mën a jëret pour mën a xool yan yan yan condition daal lañ mën a teg ci fa lañ toll mais bëgg nañ daal ñu ibil ñu làmb ji ñun ñaanuñu kenn xaalis ñu ay milliards yi ñu koy jox bu ñu ko naree jox am na ñu koy am na ñu ko soxla mais nañ ñu ibil làmb ji ndax bu ñu fi dajale woon trente milliards jox ñu ko boo fi séddale boo ko doon boo ko doon séddale wallaay la si promoteur bi lim lay fay moo ko waaw te kon trente millions loolu noonu mën nañ ko jël dem jox ñu ko yelloo mais dañ leen di ñaan ñu ibil ñu suñu làmb matuwaay yi ci war ñu dem defi ko wax dëgg yàlla ndax ku ci mel ni Moussa Diouf lu mu wax dëgg bu wér la ñëpp benn lañ amuñu benn xarma yàlla di gërëm baax di rafet lutteurs yu mag yi ndax lépp ñoom la franchement parlé lépp ñoom la. mais làmb gi nelaw mais dafa mel dafa ñu ngi ci jaamu daal fa mën a yem ndax uh-huh. te moom la ñu àndal jour moo waaw. kon man bu dul sax moo ko am dama koy entraîné waaw man suma liggéey. aw benn benn benn benn lenn lu ma def menuisier laa leen def mais dama ko tegee côté fii ak may jël pause rek bàyyi Moussa Diouf moom jàngat soble la. <laughs>